jëf euh, mbok yi yakawon ci ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa Barakatuh. yene ngi and ak euh, sen site internet euh, murid point info ñu anda ak yéen sen émission bi nga xam nak mom lañ tuddé yeewu yewi di émission bi nga xamanteni day dal ay kangam ci kenn ku ci nekk ci la ngay yëngu mo xam kilifa diiné gi wala kilifa aada gi mu melni nak tay su ngeen gisé jotay bi ngeen xam ni ngi fi ci Touba certificat kenn ko xamanteni histoire politique ci Touba wala Sénégal dutu ko faté ben yon ndax ay jëfëm ak ay jaloreem mu soxna Aida Gaye député yakarna mom lañ euh, fegol fassiyene and ak mom euh, jotay bi ñu fassiyene tam lepp li nga xamanteni ni ay tomb la yu ñu wara a euh, faram Nyu war ko léral ñu ko ak yeen ba nit ñi tam ñi sénégalais ñu mëna xam fan la dëgg gi nekké kon motax Nyu ñu jébal kaddu gi soxna Aida mu nuyo soxna Aida bismillah kum maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci déplacement bi ngeen déplacé ñëw seet si ma man soxna ay Gaye laa tudd maa ngi dëkk Ndaam politique nag yàgg naa ci parce que mun naa ne bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi politique fii nag Touba maa ngi fi commencé politique quatre-vingt-seize ndax man Dakar laa dëkkoon hmm. waaw nag laa fi commencé politique. tey jii laa ma tey maanaam quatre ba 2016 jii di sama ñaar fukki at fii ci Touba mooy politique. lan moo la neex moom du dara lu may defar cité bi rek apporter sa li nga man ci li ñuy def ci réew mi ndax euh, politique moom yat la woo xam ne boo ko yorul nit dina ko yor dóor la ko te doo mën a fayu loolu tax politique boo koy def da nga ci am intention boo xam ne mooy bañ koo dundee te di ko dundal mm-hmm. loo ci am nga xam ne dafa am ñu ne ci nit ay nit nga tax ñu tax laa jóg nga leen di wutal boo leen di wutal it loo am mu delluwaat ci ña nga xam ne ñoom nga ko doon wutal loolu tamit bokkoon na ci li nga xam ne gënoon na maa neex ci ba may politique. am baat ci PDS de daanaka ci lañ ma gën a xamee ndax uh, am na jamono yoo xam ne yii bi ma nekkee xale uh, mën naa ne Fada mi sama génération la ak. Uh, la ko jiitu ñoom tonton Jo Ndong lu yàgg la li may wax nii lu yàgg la li ci des mais fii bi ma fi ñëwee 96 sëñ baar Doli laa nekkoon waaw. ci ginnaaw sëñ Baara Doli laa nekkoon muy ko baax di sama papa joo xam ne ji maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla mu gudd fan te wér ndax nit ku baax la ku ñàkki ñaan waaw. su ñu waxee soxna xam nga li gën a metti te loo xam ne lii naqari na man naqari na ma naqari na ñi mel ni man ñi nga xam ne ñoom laa bokkal objectif ba tax ñuy bañ mooy que politicien dafa warul nekk nit koo xam ne kii benn mbàndaari lay doon wala nit koo xam ne kii day wax pour bis bi taxaw tey mu tax muy wax wala muy nit koo xam ne kii dafay bëgg intérêt ba tax muy wax loo xam ne naru ko wala moo xam ne bëgg nit ñi topp la wala nit ñi jàppale la ci ngay wut dara ba tax nga dig leen loo xam ne li naroo koo def loolu yëpp dafa nekk ci qualité yoo xam ne yi dafa dañoo jël politiciens yëpp dugal leen ci benn saako te ñëpp bokkuñu yem politiciens yëpp bokkuñu yem am na ñoo xam ne duñ wax luñ mënul ci politique duñ ci def luñ mënul duñ ci wax lu ñaaw parce que nag li gën a metti mooy euh, leader bu jigéen parce que politique dafa xaw a sensible te boo nekkee leader bu jigéen dafa am lu bari lu la war ndax euh, li nga war a njëkk a sóoraale da nga yor njabot te njabot gi dañuy mag bien que yow man na bi ngay politique xalé lañ xalé nga mais sa njabot la mag ëlëk te nopp amul couvert surtout nak sen logistique yu bess yi nit ki mën na wax tay dara ngeen dencal ko ko ba téeméeri at ba nekkatu fi sax ay seutam ngeen ngeen wan ko ko ba tax na lu nit doon def attention rek war na gëna a attention ci politique bi li taxone nak man ma dugg ci politique amna ci sa aw peut-être satisfaction totale mais xaw naa ci am dara ndax man maay première femme député bi nga xam ne sa Touba maa fi njëkk nekk député bu jigéen. waaw maa fi njëkk a nekk député bu jigéen. en 2007. waaw léegi nag euh, nekkatuma ko mais li tax ma ne la am naa satisfaction. mooy tey jii bi ma ko nekk gud laa gën a nekkatul laa gën a nekk à l'aise mm-hmm. mbooloo mu nekk laay dem mbedd mu ma neex laay jaar fu ma neex euh, laay euh, euh, taxaw wax ndax xalaat naa ne ba ma koy ba ma takkee ndoom ba tànk gi lenn rek laa mënul woon bañ lenn rek laa doon bañ muy bañ a nekk taalibi Serigne Touba waaye lu dul lool rek yitteelu ma woon ndomba tànk gi dafa am sama benn nijaay di sëriñ Serigne Bassirou Seck géwél dañ ma nommé député mu ñëw di ma siyaar di ma ndokkeel si mu ne ma damaa bëgg nga xam ne soxna Aida ndomba tànk guñ la takkal ci nit lañ ko tekkee takkal la te bu ëllëgee dañ koy tekkee ci yow takkal ko keneen wax boobu nag dama ko jël denc ko di ko dunde ba tax na li taxoon ma dugg ci politique bi muy dimbali samay bokk dimbali ñi ma dëkkal defe naa saabu mënul fóot boppam mais def naa ci sama sama kéemtalaay kàttan. bi nga ñëwee bi nga bi nga nekkee député 2007. Euh, euh, mm. Touba. Mm-hmm. nga ni yaay jigéen bi njëkk a nekk député ci dëkku sell bi tubaa mm-hmm. loolu kenn ku ne xam na ni ndam la. Mm-hmm. te itam euh, lu yaatu la. waaye nag ndax yéen boobu est-ce que def ngeen dara ci dëkk bi ak jigéen ñi surtout ma ci côté jigéen ñi ndax jigéen ñi sonnoon nañ boobu jamono xooli gerte fi amoon jaay caaf jaay soccu ba mel ni situation bi taxul dara sensé. ba léegi loolu jógu fi. Mm. ba léegi loolu jógu fi. parce que nag da ngay xam dëkk bi li ko composé parce que dëkk bii ngay gis nii suñu dëkk bi ñu nekk nii euh, sëñ tubaab moo bari doole rek waaye kon dëkk bu ñuy sonn lay doon mais nag sëñ Touba moom moo mel noonu ndax kenn ku nekk da nga bàyyi sa kër bàyyi sa kër maam bàyyi la nga fa doon def ñibbis ki dëkk bi te dëkk bi euh, tey jii bu fekkoon dafa am ay usine wala dafa am géej goo xam ne gi dem napp ci di jaay ci jën yi di def yooyu wala mu am ay usines yoo xam ne nit ñi dañ ciy liggéey nga mën a wax mais dëkk bi bëriwul ay usine am bu amu ko sax mun naa ne amul ay usine amul géej ressources yu bëri yoo xam ne amu fi daanaka commerce moo fi am ak leneen kon ku bëgg liggéey daanaka ci loolu rek ngay liggéeyee te dafa am loo xam ne moo waroon a jiitu ndax euh, financement moo fi am moom moo war a am ci jigéen ñi jigéen ñi ay financement lañ war a soxla te financement dafa am lu ko jiitu parce que bu ñu la financé te formé la sa financement du am njariñ tax na nag ñun bi ñu fi nekkee defoon nañ ay formation yu bari ndax àddina par étape la am na ministre bu fi mas a ñëw euh, Marie Pierre Sarr joxewoon na fi ay financement yu bari ci jigéen ñi non xeexuñu ci non non non loolu loolu ay wax rek la loolu mi ngi xewee ci Moustapha Diop mm. mi nga xam ne boo nekkul APR du la financé ah, waaw kooku moom ñoom dañ ne woon rupture la ñuy def ci loolu mais le pire lañu def Moustapha Diop gis naa ko mu def maatam loo xam ne li dégg naa démb jigéen ñi Kaolack yaa ngi koy yuuxu ñun ñii aussi dañoo bindoowul noonu parce que dañoo yar mais mën nañoo def ni jigéen ñu di def xam nañ ne fii ñi mu ko jox peut-être suñuy doomu ndey lañ ko jox ak suñuy sœur ndax jigéen yi Touba lañ ñi mu ci jox ay jigéen yi lañ te jigéen yi Touba ñëpp benn lañ mais ku nekkul ci parti bi du ma la financé du république ndax wax naa leen ko keroog nee naa leen Macky Sall amul toolu àllarba kenn du ko jox àddiya samay impôt li may dugal sama dërëm yi may dugal ci njëgu almet beeg njëgu sondeel beeg njëgu pétrole beeg njëgu lee sama mborom di ko dugal ci lee njëgu essence beeg yëpp sama morom di jënd ko jaay ci yooyu lañ dajale moo nekk trésor ci loolu lañ jël budget ci loolu la ñuy def financement yooyu kon warul am xaaj seen dañu war a nekk ay républicain mais ñoom biñ ne rupture tamit defuñu ko ñun formation bi kenn ku nekk formé nga woon ndax fii boo xoolee man rek lu ma juróom benn téeméeri jigéen formé woon naa leen soxna Adama kan noonu euh, bu ma ko dee lim sax ay ak du ma ko mënu ma ko lim. Hmm. parce que formation yi bi mu ñëwee dañ ko séddale jigéen yi Touba ñëpp lañ formé ba tey jii am na ci ñu am métier yoo xam ne yi ñi ngi defar ay saabu te ñoom ci formation yooyu lañ génne woon. Hmm. ñi ngi cuub te ci fo yooyu lañ amoon ñi ngi def euh, fruits et ñu ngi defar ay karaw ay soq yooyu yëpp te yow ci yooyu formation lañ bokkoon kon xam nga ne formation moo gën a baax que nga jël nit ki jox ko xaalis boo xam ne formé woo ko bu boobaa tamit xaalis bi du la ko mën a fayee nanga ko bëgg a fayee te xaalis bi tout de la war a doon. ñëpp ci dëkk bi dañ ni soxna Aida yéen seen hmm. ci hmm. euh, yow nag yaa ngi soog a wax loolu nag mi ngi soog a am ñun suñu nguur lañ gën a sentir nit ñi. Hmm. ca assemblée nationale parce que assemblée. ñun li war xam nga assemblée ñun député duñ dogal duñ dogal mais dañuy député li rôlam moy nga fatali sa wa dekk ministre bu jaar nga xol ministre bi lan ban ministère li ministère bi lim yor nga xol ko ko yor ci sa dekk nga dem laaj ko lan la manké ci dekk ba mu ci de sa dekk ba nga dekk budé dama lay jox exemple budé ke ministre de la santé mo ñew da ngay dem ci dis hôpitaux yi boo demee nga laaj leen hôpital bi lan moo fi manqué ak lan lañ fi war a defar ba léegi tey jii boo demee ndaamaatu dinañ la lii soxna Aïda Gaye ba mu nekkee député la ko fi defoon hmm. waaw ak feneen ak feneen foo xam ne duma ko lim parce que loolu baaxul ndax nit ki du def ba pare topp ci di wax ndax député moom li ko war rek mooy fu ñu la gis fu ñu gisee assemblée nationale rek nañ gis ne dëkk député bii que député Touba la mi ngi wax waa ngir waa Touba hmm. même bu fajuwul sax nañ la dégg yow ngay wax ndax instance de décision yi nga xam ne loolu ca la ca nga toog ca la la waa dëkk bi war a centre mais du looy def mais nañ xam ne yow wax nga li nga loolu mooy wax def nga ko pour ñu bañ leen a fàtte. Euh, euh, mhm. mhm. lu métti ci yéen. ndax boobu euh, soxna ay fu mu jaar ak gars yi. Hmm. Euh, ñu ni xaalis bi lañ doon campagne def lépp. Hmm. ba bi ngeen di jógee sax dañu wax ni yéen bàyyeetu leen dërëm dërëm ci keesu euh, réew mi di lu metti woon askan wi tey ndax ban nga ñu indi ko tey. xam nga li ma bañ li may bañ a dégg mooy xam nga budget doo wëlis woo xam ne rek ministre bi da ko jël teg ko bureau ba buy dem mën koo yóbbaale. budget bu ñu ko defee dañ naa la heure tel lii ngay def lii lii la dépense bii pour lii la dépense bii pour lii la dépense bii pour lii la noonu la budget tëddee du xaalis boo xam ne daf ko dajale comme par exemple budget yi ñuy wate ñu ne ministre de la justice wateel nañ ko euh, cent milliards dañ ko ko jox noo non non lu ci nekk dañ naa la lii boo ab ab sàngam nga def lii boo demee trésor nga dem da ngay bind kayit def li ngay def nga génn say ay dépense ah fonctionnement beeg li ngay dépenser pour nga dem joxe kayit ñu jox la bu dee loo engagé da ngay jël engagement yooyu nga xam da ngay lancé appel d'offre ñii rek laa gis ñuy joxe te ñu lancé appel d'offre ñoom dañ ne woon dañuy defar rupture gën a déedéet déedéet yow kon di gën gën a agré fii la tey la pe tey la waalo <laughs> gën a aay tey la waalo gën a aay tey la waalo gën a aay parce que tey jii pénut ku ne xam nga dégg na pénut mm. xam nga pénut dañ ñu daan dimbale mm. dañ daan ñëw pour indi xaalis dimbale ñëw tey jii bi mag saal demee ba nga xam ne mille 2005 2017 jot si na te amul benn lu mu wan Sénégalais bi nga xam ne moo war a ñëw di ñu dimbali moom la jël chantier yu bëri jox ko bàyyi fi Agirout bàyyi fi Agitip bàyyi fi ADEM bàyyi fi yu bëri jox ko ko sans appel d'offre kon yow sax daa mel ni soxna ay bàyyi bàyyi ko sans appel d'offre koo gis ñu tëj ko rek yoon ko tëj koo ko gis ñu tëjoon ko noonu rek yoon a ko tëjoon si noonu. waaw non non parce que baaru taal parce que baaru taal li taxoon ñu tëj ko mooy loo xam ne tali boo xam ne bii defar na ko indigré gu ko tali ba yàqu mooy du ko defaraat mhm. waaw kon Euh, te Ablaye Wade ko amoon yërmande la koo xam ne kii jël woon kaso di ko fooye yow xam nga ne nguuru Ablaye Wade boo naan tëj nañ da ngay wañ ci say te ku ci nekk bu ñu la tëjee rek am na lu tax ñu tëj la loo xam ne li c'est flagrant mais Ablaye Wade mag la ma papa woon dafa bëri woon yërmande Dabla dafa xamoon lan moo nekk ci kaso xam nga kaso léegi lañ ko foyee nii rek yàq ko mais kaso déedéet non non non ñun sunu nguur sunu nguur déedéet déedéet parce que ñun sunu nguur ñoo nit ñi dañoo ragaloon dañoo ragaloon dik ragal bip dañ leen ragaloon déedéet ñun dañ leen a ragaloon parce que xam nga la la mm. Abdoulaye da ko bëri yërmande la daawul tëb dëkk du yóbbu kaso mm. koo gis mu yóbbu la kaso rek def nga loo xam ne li ñëpp xam nañ ne li yaa ko def mais Abdoulaye da ku mën a maslaa la woon ku bëri yërmande la woon mm. waaw ndax kaso ñaar ñoo ko taxoon a jóg ki juba di ak ki juum mais léegi nii la rek nga xam ne kaso boo waxee li ma naqari dem kaso bu dee opposant nga kaso mooy sa kër boo dee nit ku yiw nga ñu yóbbu la kaso mais yooyu amul woon. ko ku ci nekk rek ku ci nekk rek dafa am tuuma juñ la tuumaloon ba nga demee ba ca kaso ba bañ la yóbboo kaso ba nga ba mu dee Idriss Seck bañ ko yóbboo ca kaso ba tam ñun la seet ko te defu ko it seetal nañ ko ne ko defoo dara. léegi atam mais loolu la yoon di doxee. Hmm. at di mu fa tëdd. tëdd fa sax ay at ay weer la fa tëdd. mais noonu la parce que ba mu fa tëddee am na ñu ko fa gën a yàgg ñoo xam ne seen détention gën a yàgg loolu te àtte wuñ leen hmm. mais moom tax na bi mu eggee dañ ko daal di àtte bañ ko àtte te xam ne liñ ko doon jiiñ defu ko tamit dañ ko bàyyi mu dem hmm. waaw waaye ñu àtte la pare ñu xool xam ne yow li ngay jiiñ liñ la jiiñ defoo ko ñu tëj la ci nguur gi rek la am amuloon ci benn nguur yow sa bopp yaa ma gën a xaw ma réew mi dafay marche en arrière di dem ci ginnaaw lay doxe yow xam nga ne réew mi da au lieu que mu taxaw taxawul dafay dellu ginnaaw. mooy li ngeen fi bàyyi woon ci njëg neen wàññi nañ ko kon alhamdulilah bu dee borom kër yee la wax loolu. ñu bëri nee nañ yow na eh jëlal ma ko ba bu rombee borom kër yi ñu xam ne mii moo moom moo ko wax. bu bu ko na nga ko jël de parce que bu génnee borom kër yi ñu xam ne xam nga sëñ Fall dafa am la ma waxoon. Mm-hmm. ñu ko ne dañoo yokk la mu ne ñaan leen yàlla di wax am delloo ma. Mm-hmm. mais tey jii amatoo laa naan am delloo ma. liggéey bu li bu ñàgg wàññeetoon xaalis amatul nit ñi yoratuñ dara lu ñu jëndee dara te njëg gi yokku na kaay ma wax la ko Macky Sall wàññiwu ko. Mm-hmm. diggante 2011 ak 2012 maa ko dégg ci un grand commerçant ñu invité ko tout la vérité. mu ne ñun commerçant yi ñu doon dañ doon xeex Abdoulaye Wade ci diggante 2011 ak 2012 dañ comme réew maa ngi nekkoon ci ay problème ñi nga xam ne ñoo yor seen bateau yi seen xaalis yi daan indi marchandise senegal Sénégal nangootuñoo ñëw parce que réew mu ñu naan tey lay tàkk ak suba lay tàkk kenn du jël ko fa yóbbu ñoo ñëpp dañoo téye woon seen i eh, marchandise bi dara desul nag lu may ne jàmm am na rek Macky gagné na ba jàmm am ñëpp indee noo marchandise mi marchandise na bu baree yomb mais du loo xam ne lii Macky Sall moo ko wàññil boppam Macky li mu waxoon yëpp def ci dara. lim diggé woon ak askan wi defu ci dara. Ah, bari na nag mi mi ngi mi ngi inauguré mi ngi dem mi ngi. inauguré da naan mi ngi tegi xeer <laughs> tegi xeer au contraire inauguré kay dafa ko eh, benn lan la fi inauguré te amul njariñ centre bee mu tuddee Abdou Diouf jam ñaajo ah. loolu la fi mës a inauguré te amul njariñ. non non loolu yaakaar yéen la koy tuddee. non non non eh, ko tuddee moom la gë moo ko gënoon a mérité ci kam ko tuddee. ndax li ko Abdou Diouf Abdoulaye defal Abdou Diouf defalu ko moom xamuloon Abdou Diouf hmm. moom Macky boo ko doon la xam nga Abdou Diouf mu ne xamul Abdou Diouf Abdou Diouf xamul Macky Sall kon ki ko defar di baayam ñëpp xam ne mooy baayam mu tuddee woon ko ko moo gënoon a yoonu maanaam mu ko tuddee Abdou Diouf. waaye nag baay bi nga xam ci yow gisuñu dara ñu bàyyiwaat la. kooku itam baay boobu itam nag est-ce que dana neex nag ngay def moom yéen surtout ma yéen yëpp ñu bëri ne nañ ñi jege waat ñoo ñoo ko jal ci kaw. Macky Sall xam nga loolu man duma ko wedd sax euh, ànd bu nekk dafay am tàggoo ànd bu nekk surtout ànd politique ànd bu yàlla taxul bu nekk day am tàggoo mais bu dee laay Wade def na mag Sall benn bon defal na ko juróom fukk ak juróom-ñeent yu baax nit bu bon da jël juróom fukk ak juróom-ñeent rek maasalee ko bu bon bi nag du la defal benn bu baax ak juróom-ñeent fukk ak bu bon ak juróom-ñeent juróom-ñeent fukk bon yow nga jël juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yu bon def ko lu Macky Sall bu fekkee Ablaye da ko defoon benn bon moom def na ko junniy bon junniy bon <coughs> nu ngi ko keroog ba ak bañ ne Macky Sall dafa gañe ak gañewul Ablaye dafa taxaw jël téléphone am félicité ko loolu benn ci lu baax waxuma fañ jaar de fañ jaar bi ay Petrosen ba mu ko joxee directeur général Petrosen ba mu ko yóbbu ministère de l' énergie inter hydraulique ak intérieur

moom daa waroon jël juróom-ñeent yu baax teg ci kaw bon boobu ñu mën teg sama bàyyi la waaye Ablaye Wade ñaanalee ba wane ginnaaw ba woo comité directeur bi Ablaye Wade mujjee def def nañu ñun yéen waa PDS bu leen Macky Sall wooyee na ngeen ko wuyu su na ngeen ko wax dem ci mois mois Ablaye dafa 600 véhicules Ablaye bi ci réew mi je pèse bien mes mots. gendarmerie amuñu ay amuñu ay oto waxuma la polis ay tëni sax leen jafe woon kon bu buy dem ñaata huit huit la bàyyi ci dëkk bi ñaata quatre quatre la bàyyi ci dëkk bi kon Abdoulaye Wade jombante nag sàcc ay oto ba ñu naan sàcc na moquette ak sàcc na ay tableau d'art ak yu ñàkk fayda yooyu ñu di ko wax waaye ñàkk ko doon wax nag ñooy ay noonam te ba Macky tëddee ngegenaayam dina xam ne ni ñooñu ay noonam lañu parce que nag euh, ku lay tàggaleeg say mbokk ci ay mbokkam la la jëme hmm. mais nag duñ ko wax dara parce que dañuy xam ne cere béy moom bu ànd ak cere day ànd ak bu ànd ak ay béy day ànd ak cere. Ah, yéen yéen bokkoon parti euh, ba euh, jaxasoo réeroo am. Hmm. Euh, tey nekkoon na ci réew mi nag est-ce que yéen wóorule wax ay jéego ngeen tase ak moom ji nu ñuy doxee jéego taseek moom gën ma waxtaan ba jéego tam nekk ak ñoo xam ne ñii ay noonam la ñu yu masqué wu ay bukki bukki la ñuy sàngoo deri béy nekk ci wetam di ko dugal rek duñ ko defloo dara lu baax. luñ ko diggal rek du du njariñam loo gis ni duwo ko ci rek du sen du njariñu mak sal sen njariñ la ay bu yu sango deru bay ñoko ko wër jàppal sa waa PDS jàppal ku wax jappal lo wax ñu né eh, article 81 eh, xawma article 80 xaw offense au chef de l'état lu way wax ñu né offense au chef de l'état kuñ bëgg japp né offense au chef de l'état ba japp waa PDS ci kasso bi ñu bëgg jubo buñ bëggoon juboo ña bañoon ni jubo moy ñi ko digal ñoo ñoo ñëw ba ñu juboo ñoo xam ne ñun ñooy famille naturelle am bu doon ñun la àndal ba dëgg di tey ji lii du ko lii mu nekk nii du ko nekk fitna yi mu nekk nii du ci nekk ah, waaw président na réew mi mi ngi dox yéen yéen nekk waaw d'accord waaw ok bu réew mi doon dox mhm. bu réew mi doon dox uh-huh. ni mu triste keroog ba muy wax li ko conseil conseil doon joxe waa naa xam ne réew mi doxul parce que bu réew mi doon dox day dem élection ah non 2017 pourquoi mu. ñàkk a jàkka ko tey dem élection 2017 parce que ñee joxuñu ko décision avis lañ ko jox il est le chef suprême voilà moom mooy moo nekk ci kaw procureur yeeg constitutionnel yëpp constitutionnaliste yeeg yëpp seen patron. est que li ku ko ah kon xamuloon ne xamuloon ne kon lii kon moom amul compétence kon il est incompétent kon xamuloon ne man durée mandatam ci conseil constitutionnel dañ ci wax. kon mom jël won denk rek non su fekk su ci ma bëgg-bëggam la won mom ah, bëgg-bëgg la bëgg-bëgg nag oui bëgg-bëgg mën na am. Ah. man nako am ba légui parce que bu demoon ba 5 ans yi mat bu kon ko bu fekkone ne dafa def lenn rek man aw ko wa digal ci am do wax sama xala bu fekkone kéro ko ko ko conseil na ñëwee dañ ko ne ko sa da en cours bi bokku ci li nga ci li nga li nga mën a wàññi. ah. cher compatriote man de nee nañ ma sama mandat en cours bi mënu ma ko jël bon léegi nag man loolu mooy sama yéene ñaata solution am na bu yeggee ba cinq ba cinquième année bi démissionné bàyyi président assemblée nationale bi ci des mu ne léegi kat référendum bi may dox damay leen di laaj ndax yéen conseil constitutionnel nit ñi lañ fa nekk hmm. citoyens yi lañ fa nekk mu ne yéen citoyens yi ndax sama mandat bi dinaa ko ci boole wala du ma ko ci boole lu citoyen lu peuple bi répondre rek mu jëfe loolu mais du dem ba Amérique kenn laaju ko mun naa leen man sama mandat en cours bi te kat da koy préciser naan sama mandat en cours bii sax da ciy bokk fu ne la ko wax dem France ñuy wax mun naa leen sama mandat en cours bu doon wax sama mandat rek dañ naan peut-être bu bëggee dafa bëgg am deuxième mandat wàññi booba xëy na mais daan sama mandat en cours bii moom moo ko wax ba ñëpp dégg ko hmm. parce que bu doon campagne électorale am na ñoo xam ne sax am na ci yàlla bind na ci ñoo xam ne ñi bu ñuy def campagne euh, promesse électorale yoo xam ne yi naruñu ko lu ñu ko wax hmm. kon bu ñëwee ba gañe ba mu demee gañe xam naa gëmuloon ne moo gañe bañ ko ba ñu demee di def déclaration la mu njëkk a wax mooy sama mandat bi dama koy wàññi. Ah, kon kay nag war a xamal nag bëgg na ko. bëgg bëgg na ko déedéet bëgg tënk ko de. saa fi tënk ko tënk ko de. tënk ko de parce que dafa amaat beneen buntu bu mën a jaaraat bu dul boobu. bopp yooyu tam gars yi mu àndal tam waa ñi nga. ah ñi mu ànd arrangé wu nga keroog moom nee parce que arrangé xam nga arrangé bu fekkee ne yow da nga euh, conseil constitutionnel. Mhm. boo demee xalima. Mhm. ah nga cliquer nga def euh, euh, jour bi conseil constitutionnel joxe avis ci Abdoulaye Wade mën na def beneen mandat nga xool réaction Macky Sall. première réaction Macky Sall loolu day am am na lu doon réagir am lu mu jàppale lu ko bëgg mu jàppale moom mi nga xam ne dafa nekk am na lu am na lu mu jàppale moom mu moom li mu wax du wax waxet dafa wax waxet waxeet waxeet parce que da ko wax 19 fois wax ko ci réew bu nekk bu doon Sénégal la ko waxee du metti mais dafa wër àdduna bi yëpp fu mu dem wax ko ñu tàcc ko boo liggéey mu wax ko feneen kon moom dafa nee nag man yegg ma ko ko yegg ma ko fii laa nekk bi ñu demee bi gars bi mu laaj ko ñoom gas parce que loolu am xaw cent milliards deux cent cinquante milliards deux cent milliards loolu xam nga ñun loolu amoon nañu ci xalaat loolu am nañu ci xalaat suñu doom yàq suñu doom kuy jigéen rek ci boo ubbee tiit télévision bi nga gis ni ñuy def ci télévision bi sax da ngay tiit yàlla da ngay tiit القرآن ني داف ين ساي ني ولا جوغانتي بو خامني جوغانتي القرآن لا دار واي اور بو اوبي تيليفزيون بو ني فاتي رك لي غيس دا دا ما لا اكسبليكي رك تي سا كيسيون لا نيك ني رك كون فيم ني فيم تولو دي نيك تو تي ان فوا دو ديفلوب ndax war na da fay gàttalu bi lii muy sobi yàlla maa ngi sëpp may joxe nii naan ay bourse sociale lépp 500 employés 5000 duggoon nit xale yi dem liggéey moo gën lii ñu nekk moo gën lii ñu def parce que am réew bu naree kii ñàng mi day baax waaye actuellement foo ubbee télévision bi daa koy grève daara yu mag daara yu jigéen daara yu ndaw ñu ngi jëli nañ ko jëli am nañ ci xalaat fu ñu ko bëgg def sama bopp laa wax xam nga fu ma ko bëgg a yóbbu dama dem France ñu ne ko yow sax bu jigéen bi dañu ko am matérialisation mu ne leen producteur bi ba ko def ndax produit bi mën na waaye bu ñu xataalu leen tax na ñu jàpp fukki góor jigéen ak benn yoo xam ne góor ci leen woon neen na ban jàppee fukk ak benn moo nañ koy jàpp jàpp ci def ci ay ci bisu gàmm da leen war a tere loi bi da ko mais déggoon ma loi bi moo tax boobu ñëwee moo ko def comme ñun ñoo ngi foon defuñu ko bu ba mu egsee rek da ko waroon def déggoon ma ba mu ko egsee ba mu egsee ñun sunu sunu sunu sunu ban Bu jigéen bu ñu jàpp def na ko si bu jigéen bu ñu ko jàpp def bàyyi ko noonu